mais Fadil la la bëgg a interpeller sur le post qui t'a valu une un un, séjour en en prison. j'ai relu le le le texte et vous y prenez des risques vous y dites des mots très forts et vous mm-hmm. parlez de personnes sànq bi ngay wax sa waxu magistrat yi loolu laa xalaat c'est-à-dire Bassirou Diomaye dafa dañ ko dafa dafa def post di wax ci magistrat yi ñu jàpp ko yow. Euh, euh, ci post bi tudd nga ci kenn ki nga xalaat ki ma xalaat ne tudd nga ci ak ni nga ko ci tuddee. Hmm. mën na tax ñu jàpp la muy Moussa Fall. Hmm. après je je fais le parallélisme avec les magistrats du du conseil constitutionnel euh, mais loolu c' est c' est c' est c' mais hmm. euh, vous un fonctionnaire de de de l' du Sénégal. bu faites un post un post boo xam ne quand même am na ci ay ay ay passages yoo xam ne. euh, c'est risqué un, un fonctionnaire ne doit pas parler comme ça mhm. am na ci passage yoo xam ne vous prenez un risque en disant que euh, dans la disparition de ces gendarmes là Moussa Fall euh, xam na lépp vous vous vous vous dénoncez un peu sa gendarmerie j'ai le texte je j'avais demandé à ce qu'on mette ça au au au au tableau donc vous dénoncez sa gestion euh, de la de la gendarmerie nga nga wax sax ne ñoom fu ñooñu dugg xam nañ fu ñu dugg euh, dafa mhm. am lu ñu leen bëggoon daf loo ñoom duñu ko duñu ko nangu avec le recul jàppoon ne da nga da nga fakkastalu ci loolu non déjà waxee ma ko noonu bon j'ai fait un poste le le le poste oui, elle oui, est là oui. voilà la gendarmerie c'est ce qui se passe la gendarmerie nous a habitués de l'avènement du général Moussa Fall une communication intempestive même pour ses opérations courantes elle émet un communiqué pour en informer le grand public comment donc de gradés peuvent-ils disparaître et que la gendarmerie n'en n'en parle pas. boo ko liiree li nga liir nii c'est je le dise ou pas ton avis li ma li ma li ma kii avec quelqu'un koo xamante ne j'ai vécu avec lui alors le mal de la gendarmerie oui. c'est non non cet état de fait le colonel Ndao l'a exposé publiquement. Oui. et les personnes qui ont collaboré avec lui le confirment. tu trouveras sur ton chemin. des oui. jeunes prêts à se défendre et protéger leur pays, leurs proches au prix de leur vie, au prix de leur vie, leur pays, et je jure devant Dieu que j'en fais partie. Oui. Mais je vais te dire un truc. C'est-à-dire que pour ça là, je suis allé en prison pour 14 mois et demi, pour un post Facebook. Beaucoup s'étaient dit que si je demais, bon, il y a eu flagrant délit, euh, je ne durerai pas là-bas. fait 14 mois. C'est ce qui devait se passer en tout cas. J'ai fait 14, oui, j'ai fait 14 mois et demi. Donc, si ce n'était que pour ça, j'ai payé ce que je devais payer, n'est-ce pas? Tu as payé plus que tu ne devais Voilà, je crois. Maintenant, euh, ça c'est un délit d'opinion souvent mun mun nga dem nga écopé d'un mois avec oui, euh, avec sursis loolu laa bëgg wax c'est-à-dire que ah. j'ai payé pour 14 mois et demi euh, amul problème c'est pourquoi parce que nous étions dans un combat global et que des gens on perdu la vie man si on m'amène en prison pour 14 mois et demi j'accepte j'accepte et euh, moi je crois que pour un poste comme ça c'est cher payé quand même 14 mois et demi. oui c'est très cher payé ça ouais. même je te le je te le mais, conseille. mais mais mais mais mais j'avoue que euh, c'était une posture à avoir je l'ai eu euh, les gens ont jugé que je devais aller payer pour pour pour pour pour, pour une détention je l'ai fait et puis je suis passé à autre chose quoi. d'ailleurs j'en pour... le est-ce que vous auriez parlé de cette façon-là non du ma du du ma ci du ma ci du ci sori parce que euh, euh, j'ai j'ai été emprisonné pour ça donc j'ai quelque chose qui quand même peut susciter d'autres choses chez moi quoi. c'est-à-dire rien qu'hier rien qu'hier euh, à à l'aéroport à l'AIBD di recevoir kooru Didier Badji jabaru Didier Badji on a perdu Daba. dee ci naqar jëkkëram bu mu per cest à xam naa ci lu bëri loo xam ne ma ko wax quelqu'un qui s'est battu pour sama cas parce que dem na fi fu nekk RFI France 24 partout pour parler de ma situation. Euh, la la la la femme. de DJ Badji la dame de DJ sa femme. et moi je crois lii yëpp am tey bu nekkoon la lumière mun na am loolu yëpp du am et puis il faut comprendre que. man benn doom bu góor laa sama yaay ki mu doon liggéeyal ki mu gën a jege. son garde du corps mooy Didier Badji. Mhm. qui habitait chez nous. on a habité ensemble pendant dix huit ans. yow ak Didier Badji. dans la même maison. mu nekk sama mag maanaam su ma amoon sama yaay sax su ma amoon ay moom ay jafe-jafe ma doon dox suñu diggante di ko réglé ku mel noonu nekk seen kër dix huit ans le. en vendredi on m'appelle pour me dire que DJ dafa disparaître je suis resté le vendredi samedi dimanche lundi mardi cinq jours après pour faire ce poste là on aurait pu facilement se dire que non peut-être da ko def. sous le coup de l'émotion le coup de l'émotion et c'est ça c'est ce qui s'est passé parce que je l'ai fait en marchant ce texte là wallahi azim j'étais entre deux trois bureaux à la CDC fa laa ko bindee envoyé quoi après. les gens nous ont pris, nous ont emmenés à prison. Je crois que le pri a été payé et que on doit pouvoir avancer. De toute façon, Senka, c'est quelque chose qui me laisse euh, vraiment très truc quoi. Je suis très touché par ça et bëgguma ci sori daal mais xam naa ni dans un Sénégal nouveau avec des dirigeants très responsables euh, on pourra faire la lumière sur tout ce qui s'est passé au Sénégal. démb bàyyi na gis naa doom yi bi ñu ñëwee seen doom yi trois doom yu ndaw lañ fi bàyyi ils n'ont plus de parent seen yaay aussi décédé na euh, ils n'ont plus que seen ay mbokk quoi mu jeex quoi man je crois que responsabilité wu nit sama doom su ko dara dara li mu ci war a taxawee noonu laay taxawee ci koo xamante ne day liggéey suñu kër association may gérer bu fa dara xewoon je devant taxaw nu mu waree taxaw Mais je crois que c'est des choses qui ne doivent pas dans une démocratie et que les gens doivent les efforts nécessaires pour que euh, au moins les gens sachent Parce que la dame là, elle s'est longtemps battue pour au moins que lumière soit man connaître soit faite. la vérité. période, je crois qu'elle avait écrit aux autorités des armées pour un peu faire la lumière sur qui. Mais voilà. En tout cas, l'image de prison, mettez-moi parce que koo xamante ne la comme que da doon taxaw pour jàppale sama yaay ci liggéeyam nekk garde corps mënoon nañu ko ci faat à l'époque parce que nañ fu metti côté 2004 yooyu yi xewoon Sénégal. mun na am 2004 avec les chantiers de Thiès. oui et beaucoup d'autres choses mun na am ñun buñ dara naroon dal tam lay taxawee te man fekkee naa fu mu amee taxawaay boo xamante ne bakkanam xajoon na si man personnellement. au côté de votre maman. oui donc c'est la moindre des choses quoi c'est-à-dire que gendarmerie waruma mere. pourquoi parce que damay défendre un gendarme je suis allé 14 en prison pour un gendarme je ne le pourquoi parce que jàngee naa si ma nekkee kaso mais aussi c'est des positions principielles quoi nit la koo xamante ne doomu aadama la qui a droit à la vie boo xam ne disparaître na dans des conditions mystérieuses et on était en passe de se poser des questions je me suis posé des questions ça m'a valu la prison y a pas de problème sa m'a ragaillardi et ça Euh, les thèses avancées. non du ma sori ci loolu parce que tey <laughs> su ma jógee fii <laughs> su ñu waroon convocation jàppal ma. non pas parce que ah, ah, xaaral rek su ma si soriwaatoon tey jii nii mun naa xëy su ma ñu convoqué jàppal ma. ah mais bien sûr. mais xanaa da nga ci xam dara xanaa da nga ci xam. lu warul fay. mais même su ma si xamoon dara du ma ko wax su ma xamoon dara du ko wax fii c'est-à-dire que c'est une chose boo xamante ne c'est passé j'ai fait un poste j'ai payé pour ce poste là. Euh, maa ngi jaale njabootu daba bi daba bi njabootu daba la femme de DJ nga xamante ne kooram démb ñun jot nañ ko mu nekkoon en partance pour Fatick ñaan yàlla yàlla xare ko na ma koy jaale Sénégal di ko jaale mbokkam yëpp mais position yi ma taxoon tax ma dem foofu noonu euh, ci man la nekk quoi sama ngëm-ngëm la quoi c'est-à-dire que même Ousmane Sonko m'a reproché à un moment donné d'avoir fait ce poste là c'est-à-dire que c'est un poste qui est parce que j'aurais et puis man j'ai pas de problème avec la gendarmerie pas avoir le problème avec la gendarmerie pourquoi parce que j'ai grandi en leur sein dama leen xam yaa ngi dégg donc bu nekkee on a peut-être extrapolé par rapport à ce que je voulais dire on a voulu me faire payer autre chose que ces propos qui sont contre la parce que des gens sont prononcés sur ce sujet-là et ont dit des choses beaucoup plus graves que ñu yóbbu leen kaso man yóbbu nañ ma am na lu tax ñu yóbbu ma kaso mais je reste fort et puis comme ni ma la waxee rek man kaso bi daf ma daf daf ma yokk doole daf ma yokk xam-xam daf ma yokk euh, gën a dëggu samay conviction mais c'est un boo xamante ne c'est un dossier qui pendant je crois devant la justice et que ñoom ñu seen enquête peut un jour ils nous les conclusions mais je suis allé en prison mais je ne regrette pas maa ngi sant yàlla quoi yàlla yàlla ni la ko bëgg yoon et puis voilà. ce dossier est entouré d'un voile d'opacité totale c'est-à-dire mënuñ ci am benn information. mais peut-être que yow en tant que journaliste faut poser le plaidoyer. ah c'est-à-dire que faut faut de la gendarmerie les inviter les poser des questions sur ça. aller faire des enquêtes et tout. non euh, ce dossier là man jéem naa dugg génn xool dara du ci seen. Eh, eh, eh, après ça fait partie des dossiers yi nga xam ne nit ñi quand de de de de deux deux forces de l'ordre yu ñàkk seen bakkan war nit ñi war nañu xam tamit mbir mi fu mu mujjee. xam nga du ñu ay lambda ñi ñi génn ñi ñi ñàkk seen bakkan tu sais tu sais DJ DJ Badji vraiment que ko connais parce que Flubert man miinu ko. j'ai rencontré par contre des gens qui m'ont dit man cousin Flubert laa man di j'en ai rencontré imagine un garde du corps bu jël temps dem defi un master 2 à l'ISF en finance publique master 2 en finance publique. fii ak cour des comptes Fulbert. Didier Didier. di jàngee IGE fa jàngee ISF institut de finance def un master 2 en finance publique un gars très ambitieux am lu mu gëm am lu mu bëgg. et je aussi pour sa mémoire billahi wallahi watallahi Didier musul ñëw ne ma gendarmerie lii wala gendarmerie laa barke Seydina Mohamed billahi c'est quelqu'un qu'on a fréquenté ki nous a vu grandir nekk suñu mag mu am lii dal ko ñu am si taxawaay un point tout loolu kese la Ousmane Sonko bi ñu ko gisee dafa ne ma pourquoi tu as fait ce poste là fallait pas parce que yow dafa am rôle bul joué fii et les gens xam nañ ne ñoo am importance dans le dispositif soo matul dañu lay jàpp bi ñu convoqué sax ma koy nëbb mooy aller faire le nemmeeku tour un jour deux jours troisième jour yi mu woo suba teel ma ñëw ñu toog mu ne ma xam naa dañ la kaa dañ la convoqué mais dama koy nëbb parce que bëggoo yàq ñemee ko tur bi mais yëg naa ne dañ la convoqué mais xam nañ lii nekkul loo xam ne daf may heurté parce que yàgg nañ dund ay situation yu yu extraordinaire donc voilà quoi c'est peut-être y a des propos qui sont rapportés qui ont mal posés mal exposés mais euh, c'était fait sous le coup de l'émotion et je crois que un frère comme j'essaie d'en savoir plus quoi. en tout cas du ma ci du ma ci xuus lu bari j'espère que un jour la.